waaw ah, tey xalaat naa like mënoon nañ def police comme ça ñu mën a jël victoire bi boo gisee fin mi fin match bi lañu ñu commencé yeewu lii yëpp daf ñuy jàngal quoi dañuy dellu suñu club yi ñu dem entraînement bu baax su ko defee ñu seetaan vidéo yi nga xamante ne mën nañ mën nañ euh, si erreur lu ñu def yooyu noonu ñu jàng si comme ça buñ dellu si wee ñu mën a am daam résoudre problème yooyu noonu. tey dañuy sànni bali bu baax xam na terrain bi ñun du ñu critiquer terrain bi fii lañ dëkk mais conditions yi mooy loolu ba. dañuy sànni mu dugg day même NBA noonu la te da ngay sànni mu duggal suba du so situation noonu bu amee da nga siy rek xool beneen yoon so sànnee dugg loo war a def loolu dañ siy jàngat lu bëri mas bo gis bu ñu mën a joué dañ siy jàngat lu bëri parce que boo xoolee mas yi gagné nañ benn ñu perte benn comme ni mu ko waxee Tunisie équipe bu baax la duñ leen sous-estimé comme Sénégal aussi équipe bu baax la te ay xale lañ lu ñu mën def mooy dellu seetaan vidéo yi entraîné waat ba mu baax comme ça mel ñoon suñ dellu ñu représentant Sénégal normalement. man damaa yeewu rek taal sama téléphone gis sama xarit di ma message noonu laa ko gisee objectif mooy dem sama rêve sama dëkk saa ma soxlaa ma ñëw représenté ko. mooy comme ni ma ko waxee rek dem entraîner sama rêve man basket bi sama rêve mooy jouer demee si loolu laay concentré instant yii mooy sama objectif. boo xoolee équipe bi ay xale rek ñoo fi nekk dañoo gëm suñu bopp te boo gisee ambiance fi nekk booloo ñun ñëpp dañoo doon benn fii ba si ay kanam at bu ñu continuer ak suñu groupe bi. Sénégal dina dem fa sori